من الشيخ الحاج عمر الفوتي سيدي الحاج مالك سي مام عبد الله نياس مام خليفه سيرين بابكر سي رضي الله تعالى عنه مام منصور مام الادي عبدو مام الادي حبيب ñooñu ak ña topp ca seen gannaaw ñooñu laa jàppe mag ñi ñooñu nga jàppee mag ñi waaw ñooñu laa jàppee ni ñooñu ñooy mag ñi ñooñu nag képp ku baax doo leen diingat parce que lu tax ma ne doo leen diingat seen maam ya ak seen baay ya lañ fi indi woon ci diine ak sunna ak lañ fi saxaloon jëmbat ko fi looloo fi nekk ba tey gis nga mag ñi bu dul woon ak ñoom ñun duñu xam luy sunna su dul woon ak ñoom déedéet pourtant ñooñu la ñuy wax ni ñoom ñiy diingat mag ñi dañ nee nañ ñoom ñooy ahlu sunna mag ñooñu ngay wax ni ñoom ñooy ahlu sunna ñooñu la ñuy wax ñooy ahlu bidaa ahlu sunna mooy Cheikh Alhaaji اهل السنه مو شيخ الحاج عمر اهل السنه مو مام عبد الله ياس اهل السنه مو كمل سيرين بابا كرسي رضي الله تعالى عنه ньоญ ньоي اهل السنه ناخ ньоญ بي ني جانغالي في دي جانغالي القران دي جانغالي سنه يونتي بي صلى الله عليه وسلم بابا ني دي واخ ني تي اهل السنه بابا ньоم سيني باي اك مام تالو نيو كو وون شيخ الحاج مالك دون كو kon ahlu sunna deug deug suñ koy wax moy suñu mak ñooñu ñoo ñoo tek seen tànk fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam tànkam lolo jaral maulana Cheikh Al Hadj malik bay wax ni ilahi faj'al ahlana ahla qurbatin wa ahla ittiba'i sunnati fi taraaxumi yàlla comme yonent bi dafa noon bada a diinu gariba waaw wa sa yahudu kama bada a gariba lil xurabaa'i muni ni Malik ni yàlla yàlla nga def man sama ñooñ bu ma ne ñooñu alaaj Malik bu yakani wa tariqa bi la de dedet ñooñu alaaj Malik moy kep kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rek yaangi ngi ci ñooñu mam cheikh alhaaj Malik si radiallahu taala anhu ndax mo waxon sama keur santul si yàlla la sante yàlla nak ma ngi lay ñaan sama ñooñ yàlla nga leen boole ci ñoñ ñi nga xam ni dañuy topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ahlu sunna daal su ma koy wax mooy ñi nga xam ne ñooy sufiyanke yi jàpp tariqa teg seen tànk fa ko yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tegoon tànkam oustaz Mansour oustaz kon lu bees li fi juddu wala ndaw ñu bees ñi fi ñëw indi xam-xam bu bees bëgg indi diine ju bees diine ju bees mooy takfiir mag ñi taxawal seen bopp ni ñoom rek ñoo sax ci dëgg ñom di nangul na leen seen deug waye buñ lo mag nit da dana la xamal li nekk ci lo nit So ne nit yéfer la te du yéfer yow genn nga ci diiné so ne nit diw yéfer la genn ci diiné te gennul ci diiné yow mi ko wax mom genn nga yow mi ko wax genn nga genn nga kon mag ni kenn waru leen lo nangul nañ leen ñom seen pas-pas ñom ñu wax sunna nañ jël alquran ak sunna yonent bi ñu téye ci loolu nekk ca mag ñi nga xam ne dañoo jël al alquran jël sunna yonent bi jël leneen boole ci ñu bàyyi leen loolu ndax gis nga dafa am ñetti xam-xam yoo am te l'islam dafa am ak liimaan ak lexsaan hmm. su dee yow ci cadre l'islam rek nga yem yem ci mooy téyel alquran ak sunna rek baax na téye ci dara gënu ko hmm. waaye bul takfirloo ki ki la ki ki ki nga xam ne dafa yéene yàlla lu ëpp loolu dafa yàlla. lu ëpp loolu dafa yéene digganteem ak boroomam def ci lu ëpp yow li ngay def loolu mooy mag ñi mag ñi bind gi leen yàlla bind ak boole gi leen yàlla boole ci xeetu Seydina Muhammad Oustaz Mansour ak jagoo ak jagle yi yàlla yi yi leen yàlla defal loolu tax ñoom ñu bëgg a defal yàlla lu ko kenn defalul roye ko seen yonent muy Seydina Muhammad ba muy naafi la ba tànkee new wi mënatul toog muy sóonu ah Aïcha dafa ñëw ni ko xanaa yàlla waxu la jéggal na la sa bàkkaar yu njëkk ak yu mujj mu ne ko est-ce que mas ko wax kenn mu ne ko déedéet mu ne ko su su ma waxee lu mu masul waxal kenn uh-huh. ma bëgg koo defal lu ko kenn masul defal mag ñi nag loolu lañ bëgg a royee ci yonent bi pour defal yàlla lu ko xeet yu njëkkee defalul moo tax tasawuf bii mag ñi tekki seen tànk oustaz Mansour. jërëjëf fajoti imam oustaz Alhaaj Pape Makhtar oustaz jëm nañ ba di wax ni jàkk ji nga xam ni eh, bu ñu denc góor yàlla yi jàkk yi ku ci julli rek sa julli aar baaxul. kon ku julli madinatul munawara sa julli baaxul. madina madinatul munawara ku fa julli kon sa julli baaxul. yonent baa ngi ci biir jàkka ja. non oustaz Madina Madina yonent bi si néegam la nekk. ci biir néegam lañ ko denc. waaw waaye jàkka jaa ko fekk si. ba tey néeg ba nekk ci biir jàkka ja. waaw Cheikh El Hadj Malick radiyallahu anhu fañ ko denc jàkka jaa ko fekk si. sëñ Babacar si fañ ko denc jàkka jaa ko fekk si kon xanaa doom benn la kon. ah doo julli tamit baytul muqaddas ndax baytul muqaddas Jérusalem la wër xurum ba wër jàkka ji yëpp lu mat ñeenti junni yonentaa ngi foofu ñu denc. Hein? Mhm. kon damay wax ni Mansour nit même même su fekkoon sax du seen kër la motax nit suñ ko soulé fenn ñu ni boo fa jullee julli li yonenti yi ni juif yi yahud dañoo seen bàmmeelu yonenti def ko ñuy jàkka ñun def jafunu fofu muy jàkka ñun jàkka jaa ah, ngi loolu indi comme argument ñun jàkka ji la jaangi ni xamnañ li bammel nit fi soul. ku baax lañ fi suul te Mansour dama lay waxal lenn. nit ku baax buñ ko suulee. fenn tos la xam nga tos. tos mooy lan mooy fumier. boo fay jaamu yàlla fumier ci tool. waaw fumier ci tool. nit ku baax buñ ko defee fenn nga fay jaamu yàlla day fumier sa jaamu yàlla. di ko gën a dooleel di ko gën a dëgëral. waaw loolu nag ñooñu waxuma ak ñooñu waxuma li ma wax nii waxuma ak ahlu sunna ñuy wax ñooy ahlu sunna wal jamaa ndax duñ ko dégg ndax seen niveau àggul foofu seen xam-xam àggul foofu te isalem tëzuq sa limi man zaqa mi su fekkee ñamoo li yi ñam bàyyil ñi ñam lanu ñam mais bul ni kenn ñamul dara na ñem nag ci loolu waaye bu kenn takfirloo mbagg mi loolu daal Mansour man mun ma koo su ma la déggee daal mooy ki nekk ci bunt bi te xamul la xew ci biir néeg na yem ci biti ci di wax li ci biti waaye bu mu wax ci biir néeg bi bu lii moo fa nekk wala lii moo fa am te loola amu fa استاذ منصور جيرجي استاذ امام الحاج فمختار استاذ اسكو جوتول نيون ني توغا ني توك خولات سوني توغاي واو خولات توغاي بي دو خول توغاي تاريخي دو خول توغاي تاريخي دو خول توغاي ماتني سوسون تاريخي استاذ غاي تاريخي لي دوت بارام اك ماغني ها واي دو خول توغاي تاريخي ديدت دو خول تامي توغاي ماغني سوسون تاريخي تاريخي تاريخي كين دو خولات سين toogaay mag ñi sosoon tariqa yi tamit kenn du xoolaat seen toogaay waaye ñi leen wuutu nag tey am na ci ñennat ñoo xam ni tariqa yi war nañoo xoolaat seen toogaay ña fa toog ñu leen di tudde ñooñ tariqa ñooñu war nañoo xoolaat seen toogaay kay dañ caa dugal lu ca bokkul lu ca mag ñu dugalul woon kër goo dem tey ci kër yi tudd tariqa am na luñ ca def tey loo xam ne mag ma ko sosoon su ñëwoon tey wallahi dafay sëgg. te dugalaat nañ ko ci. def nañ ko ci loolu nag bokku ci suñ daayira yàqu na te xam nga ni daayira sababu tarbiya bu rëy la Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu formé woon ko. Mm-hmm. suñ daayira yi tey yi ci ëpp yàqu na. Mm-hmm. muy benn suñu gàmm yi yiñ daan gàmm tànt tagg yonent bi yi ci ëpp yàqu na. suñu waykat yi ñi ci ëpp léegi ñoom ak ñiy way wayu àdduna yi mbalax yi daanaka ñooy ndax folklore ndax folklore suñu ustaas yi daanaka li ñuy wax léegi pour jël li nekk ci poosu nit ñi rek dem. ñeen nag ci sëriñ si tolloog man ay at. Mhm. ma ñemee leen ko wax. Mhm. ñoom seen toogaay war nañ kaa changer war nañ kaa changer. Mhm. ndax boo toogee ñun la ab sëriñ nga. nga toog ci xadara boo xam ne danaan xadara bii sa xadara maam la koo xam ne day wuyoo sa maam yëkkati fa kàddu bu mu warul yëkkati nga noppi ca nga noppi ca nga noppi ca da gis ku toog ab sëriñ bu toog taalibeem jóg di wax ba ne ko sa maam yàlla la sëriñ bi ni tekk du wax dara ki ko wax sa maam yàlla la seytaane la génn na ci diine lislaam mom mi deug loolu ci noppam te ni moy serigne bi shaytan la génn na ci diine lislaam ndax asaakitu an ilxaqi seytaanun axras yenent bi neena ki nga xamni dafa noppi ci deug te deug gi mu noppi mom su ko dindi won dara du ko ci fek dara xam nga tay nit meun na ñëw ma joxe misaal bismillah nit mën na ñëw tey yow ngay setu alaaji Malik man may sab taalibe di taalibe jàng li nga jàng nag ci sharia xam li nga xam ci sharia benn taalibe ñëw fële ni la Mansour sa maam yàlla la yow wóor ni soo ko weddee dara du la ci fekk yow mais man mën naa ko weddi dara fekk ma ci man mën naa ko weddi ci mbooloo mi dara fekk ma ci effectivement ah ndax léegi nit ñi dëgg su mën nga ko weddi ci mbooloo mi sax am ko génn ba fële te sëriñ bi noppi na de waxu ci dara mu ne waa Pape Makhtar mënu woon déglu sëriñ bi mënu woon déglu sëriñ bi mënu woon déglu waxam lu sëriñ bi di wax. te sëriñ bi moom noppi na ba wax boobu daanu ba beneen wax jóg ba beneen wax jóg te waxu ca su Pape Makhtar wax dëgg yàlla Pape Makhtar mënu woon déglu sëriñ Pape Makhtar daal amul teggin. yaa ngi toog ak sëriñ bi di taalibe sëriñ bi waxu te mais sëriñ bi taalibe la may taalibe. sëriñ bi taalibe bu dee kër Alaaji Malick gi ma xam. ndax ñun kër Alaaji Malick taalibe rek. ñun bëgguñu lenn taalibe rek. kon sëriñ bi taalibe la waaye may taalibe waaye ñaari taalibe yii dañoo yamul ay. degré ay degré. pouvoir yi yamuñu pouvoir yi yamuñu. moom mooy sama kilifa ci biir biir taalibe gi waaye taalibe la rek may taalibe. waaye mooy suma kilifa nag di suma sëriñ. ah sëriñ bi noppi ci yu mel noonu nag moom laa wax ni war nañ koo dindi ci tariqa yi. tey tariqa tijaan am na tëgg. te bokku ci bokku ci. am na fecc bokk ci te bokk ci te tey daanaka mën nga ni tarixa yi fi nekk yëpp foo dem boo fa fekkul tëgg ak fecc da fa fekk am fecc moom foo dem soo fa fekkul baatul jigéen yooyu boo fa fekkul tëgg ak fecc da fa fekk baatu jigéen buy yëkkati ca kaw kilifa yi toog kilifa yi toog te Cheikh Al Hadj Malick ci xasida ni jigéen warul baatam waaw léegi nag yooyu nag laa wax ne ñun ci biir tarixa yi war nañ kaa seetaat nag war nañ kaa seetaat ba kenn du am dara lu ñu jame raxas lépp ba mu set wécc wécc ba kenn du am lu mu jame oustaz Mansour. jërëjëf fajate imaam oustaz Pape Makhtar xam naa ne foofu la ñuy eh, daggee suñu waxtaan rek incha allah rabbi ba beneen yoon incha allah. incha allah Mansour maa ngi lay sant baax di la gërëm di sant suñu caméraman Hadj Samba si di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko sutura. defal ko teraanga ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam te defal ñu ko ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.